dafa doon weer boo xam ni war weeru promotion la weer boo xam ni loo si naafi la loo si julli dan la koy doubleel wax ma la double sax mais mën na la ko tripleel parce que bu dee bu dee benn dan lay dan la koy defal fukk bu dee ñaar nga am ñaar fukk moo tax jumaa yi ni ko gars yi di respecté weeru koor du bokk ak lu dul weeru koor wante en tant que musulman juma jàkka bis bu nekk danga nga fa war a teew ndax it jàkk yi ñun jeunes yi tout le temps lañ ci war a nekk nekkul mois de ramadan kese lañ ciy nekk wala mois de ramadan su passé ñu ñu dem soo xoolee nag xaaj jeunes yu bari xamatuñ seen diine ba pare amatuñu diine ba pare léegi fokk àdduna bi daf ñoo yóbbaale da nga gis sax léegi koy julli sax imaam bi ne asalaamaaleykum sax mu jóg dem te dafa war a toog lu mu bon bon bon def ay salaatu faate ñaan soog a mën a jog dem manque de diine bi daal man laa gën a gis moom la mais du dara. Euh, jeunes yooyu di def loolu euh, man daal damaa gis ne kon par exemple booy taawu ni daal nga xam ni seen imaan dafa dafa dafa des noonu laa ko mën a tuddee waaye ñun ñi nga xam dañ ñoo jël yar ñu si diine ñu am ñetti at ñu yóbbu ñu si daara ja jàngal ñu lan mooy diine ñu xam liy diine man raa yaakaar naan daal duñ def loolu. ñun bu dul weeru koor ak weer ñu daal jàpp nañ ne weer yëpp weeru euh, weeru yàlla la te daf ñëw digal ñuy julli di woor ñun daal yaakaar nañ ñu daal loolu daf ñu see fekk moo tax bu ñuy pratiquer euh, l'islam bi dañ koy pratiquer kon nuñ ñu ko waxee du weeru koor rek la ñu war a dem jàqat ba pare début bi jàqa yi fees del bu ñu demee ba ci kanam muy wàññeeku wàññeeku wàññeeku loolu moo wax dëgg yàlla ñun duñ dundee noonu daal man man ba ma xamee ba ma dalee xam-xamee ba léegi loolu laa yàgg seetlu si wóoru jeune se profit de l'occasion pour yenn yi bon di nga dégg nag kilifa diine yi waaraatekat yi ma ñooñu laa yërëm mais man je me disais que ne dafa fekk ngay jaamu yàlla bu si xaar promotion defal rek ndax mooy fay mais jàq ji day fees bay génn si biti su suba midi tu vois heure mais une semaine laa la may jàkki commencé bi ndax lan ñu delluwaat seen programme. àdduna loo gis rek tàmm la ñi nga gis ni mooy bu bu keer gi jotee koor gi jotee ñu dem 15 jours yu njëkk yi wala 10 jours yu njëkk yi daa fekk tàmm ñu dem si jumaa rek waaw ndax boo tàmmee dem si jumaa moom même bu weer koor da ngay dem ndax yonent bi nee na nodd foo ko déggee rek da war a ñëw xalaat boobu lañ si am mooy ñi nga xam ne day dem ba si digg bi mooy tàmmuñu ko ñiy dem di continuer nag mooy ñi nga xam ne ñoom internet fa lañ dëkk waaw te jullit bu ne si mbooloo nga war a jullee waaw jumaa nga war a jullee waaw yàlla léppam promotion la ndax boo defee benn mu fay la fukk loolu promotion mënu ko weesu comprendre nga kon nit ñi nañ nañ jàpp ni chaque jour promotion la parce que dañu boo defee benn fay naa la fukk boo ma tooñee ma toog ba 40 jours wala ñetti yoon ñu soog la baal kon yàlla léppam promotion la nañ fexe góorgóorlu si loolu du weeru ko rek mooy promotion chaque jour promotion la. am na ñoo xam ni sax dañuy dëkk si jàkk si si si koñ peq ak jàkk bi te duñ fa julli duñ fa naafila duñ fa def dara dañuy toog seen kër. te loolu lislaam li mu si wax ku ko xamoon doo dëkk si booru jàkka wala ngay dëkk si ay booru juma waaw ba tax ne daal euh, sama xalaat bu gàtt mooy que juma yi ni muy feesee ni muy feesee si kii bi ni muy feesee si koor gi euh, mbiru sunu borom la ndax bu dul weeru koor ku nekk yaa ngi dem si sa activité même su desee bu desee di jours yi gars yi ñu jéem a dem toppatoo ji seen ay muuru koor toppatoo ji seen kër loolu moo tax muy demee noonu nit ki warul ko xaar de carrément ne que weeru koor moo tax may dem juma non weeru koor man pour man eh, at ba at lay ñëw donc julli xoolul at ba at julli chaque jour la dem dem jumaa man pour man chaque jour la waroo xaar dina tey weeru koor liñ nekk moo tax may dem jumaa ji loolu du lu baax. dama bëgg euh, xelal jeunes yi que ne gëm-gëm gëm-gëm la rek. ku si nekk la nga liggéeyal la la yàlla di fay kon dañu ñaan yàlla liggéeyal loo xamante ni ëllëg bu ñu yàlla di fay mu doon li gën si ñun. nee na fi nekk war a commencé àdduna fi nekk war a commencé gëm na yàlla la du kenn ku dul moom kon jeunes yi dellu leen delloo leen seen xel sa yàlla te bu leen xaar promotion yi delloo leen xel sa yàlla te bañ xaar promotion ndax ah. bu lay fay promotion lay fay de. en tant que musulman man li may li may digal sama mbokk jullit di mooy que juma jàkk amul koor amul amul amul budul koor juma ji jàkka ji saa su nekk jullit dafa war a teew dem dafa jëll am na ñoo xam ne nag dañuy nekk si juma di xëccoo ay juma di xëccoo ay njiit am na ñoo xam ne toog sa kër sax mooy gën léeg-léeg dem si jàkka di julli parce que léeg-léeg nga dugg si jàkka joo xam ni euh, imaam ba nay ba lu nekk ñu ngi koy xëccoo lu nekk ñu ngi koy xeex mais jàkka jàkka pour jullit la pour julli. yonent bi li mu wax ajuma boo ratee ñett bokkatoo si jullit yi comprendre nga su nekkee juma foo déggee noddu da nga war a dem julli ji soo amul ngant julli mbooloo lañ wax.